bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo man leen ziar bu baax a baax a baax eh, di leen jégalu nag xam naa coon gi ma soo moom mbuum mi xaw naa mel ne miin na internet bi sama dama doom sëñ Bass Thioké dañuy sëñ Cheikh Thioké rek sëñ bas alquran moom bu yoro na na ko wax sama muraat la bi ñu bari bari bi waaw bu ma ñëw di bëgg a wax ak yéen tey di ma war a wax ak yéen ci bari na tey nag xam naa dama ciy rek waxtaan ci ak bi mooy télévision bi wax TFM bu Youssou Ndour Télé futur média euh amna émission bu muy dugal ci euh, bu muy dab yakarna par ay bis xawma par ñaata fan bo xamni dafa am tuddu bu wiir wi dafa am ku ci nek ko xamni dañ koy woy Baye Fall euh, muy jëf-jëf jo xamni jëf ju ñaawa gis la di mandragal gatt xam-xam ñàkk diine ñàkk scrupule loolu lépp ñu koy tuddee Baye Fall muy giñ ci Cheikh Ibra di giñ ci seen Cheikh eh, seen muy looloo xam ne lu ñaaw la ba ay taalibe yëpp daanaka ñi ma xam di ko téléphoné ma di ko ñaawal ndax man daaw ma ko seetaan ñi ma xamut it ñu ci bare bari nag samay xarit ci Facebook wala par email di ma ko di ko ñaawlu te jamono yooyu laa woowoon ci eh, TFM doon laaj directeur de programme daje benn directeur de service boo xam ni fàtte naa ban service la nekk direct yor direction ba ak turam waaye bi ma ko waxee eh, li may ñaawlu te mbokki Baye Fall yeeg murid yi yëpp di ko ñaawlu eh, dani ma kon moom dana danaa ma woowaat naa ko bàyyee sama numéro téléphone ginnaaw bi woowaat na ma laaj ma bàyyi kan ma wax ko ko eh, moo wooti jii Ñang fa la nekk di fa liggéey moo it wax ko ko ba jamono yooyee dégg naa tane woon na de suuri wax bàyyi faal bàyyi rek ci la ñëwoon di ko wax léegi nag jàpp ne nag moom du bàyyi faal ndax bàyyi faal day respecté kilifaam bàyyi faal day bëgg kilifaam bàyyi faal day fonk kilifaam ba aw turam du ko tudd ci théâtre du ko tudd ci fiction ndax théâtre fiction te fiction mooy lan loo xam ne nit da koo xalaat ci xelam loo xam ne dara dëppoo wuute ak dëgg mu représenté ko représentation boo xam ne boo toogee day mel ne eh, li nga jàkkaar moom eh, histoire bu am la. ñuy seetaan télévision ñuy seetaan cinéma ñëpp eh, xam nañ ko. danañ ci dolli sax ay effet ah ngir mu gën a niru dëgg ngir mu gën a réaliste waaw nga xam ni kon kuy jàkkaarook loolu da nga xam ni dañuy wax sax du dëgg waaw kon boo respecté sa kilifa.

ak benen photo bi nga xamni bi muy tertu bi Serigne Touba li ñëw tam nek fak Blaise Diagne Galandou Diouf ñaari photo yooyu seen amul yeen photo ku bëgg roy solo Cheikh do xolal xolal ñaari photo yoy ku bëgg roy jikom bo démé keur Cheikh do go dem diko dalé keur serigne Mourou Moustapha Fall ba keur Baye Ngounda keur go fa dem da nga fa fekki Baye Fall bo bëggee roy ci Baye Fall da nga xamni ñi ñi lañ nak bu boba bu def loolu sañ nga ni Baye Fall la wala Cheikh Ibra lay roy parce que Cheikh Ibra moo jàngale ak tan bi su le répète rek nga te itam mm, ci euh, roy googu ba tey euh, boo xoolee rol ba muy joué mooy rôle rôle ñàkk fayda rek rôle subalterne rôle dégradant boo xam ni da lay toroxal te Cheikh Ibra ko amul fayda rek bépp nit bu la ni sama maam wala bàyyi mas naa wax Cheikh Ibra lii lu dul yoon bu bu ca tegut ne la Cheikh toroxal na ko ne ko waxoo dëgg Cheikh ko amoon fayda la Baye Fall ça ne veut dafa war a am fay dafa war a ñàkk fayda Baye Fall dafa war a xam li mu bëgg xam fa mu koy bëggee ak na mu koy bëggee mu am way ca taxaw ca loola ci fulla ak fayda waaw ñàkk fay ga moom mi ngi aju ci kanamu sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi ndigalul sëriñ bi bëgg sëriñ bi jox addiyee sëriñ bi ak njabootu sëriñ bi foofu la war a ñàkk fayda loolu te ñàkk fayda dama n'importe quoi pour quelle n'importe quelle raison loolu loolu loolu ku la wax euh, te li tax nga xam ni message bi nga xam ne moom la ñuy jéem a wane jàllale pour ñu am benn xalaat bi ci Baye Fall message message bu dangereux la parce que dañu bëgg représenter Baye Fall bi mel na nit ko xam ko ignorant la ko xam ne jàngut wane ne koo xam ne ku ñàkk fay la ko salte la koo xam amul benn escrupule def lu bon ak def lu ba xamé wu len différence ba loolu lañ bëgg présenter Baye Fall té képp kuy songu yoonu Cheikh Ibra Serigne Touba ngay visé dañu ñemee ko nak di ram parce que commencé nañ di caricaturiser ku ne lii euh, benn ben ben jéego la rek buñ dox

ngeen décompiler ko télécharger ci internet ben logiciel bo xamné day décompiler décompiler vidéo vidéo décompiler bo xamné day tas vidéo parce que vidéo du caagee ne lan dul ay photo yu ñu tegale rek diko ko ko won won gaaw manam bi ci gëna am résolution bi ci gëna élevé actuellement en full HD moy 60 photogrammes par seconde ben seconde bu ne yow danañ la jallalel 60 photos bu ko mo mu nit ki dafa daw nga defee ne leneen la fekk non la boo leen jëlé vidéo décompiler ngeen tas ko vidéo 10 minutes 20 minutes peut-être mën am mën am mën am 60000 wala 80000 photo nga diko ko tas di ko xool benn par benn da nga gis probablement image yo xamne dañ ko cay jallalé parce que 60 images par seconde bu né nga nga jël nga jël 50000 images normal jël ñaari images yo xam nak leneen nga ca bëgg def lu bon ha ah, lo xamne ne ko bëgg duggal ci xel bop nit ñi moy lu bon mën naa doon sax ñaari ñaari nit ñuy sëy ñaari góor ñuy sëy mën naa doon lu ne nga boo ko dugal nit ñi loolu seen bët mënu koo gis ah, parce que vitesse u euh, vitesse bi nga xam bi ñaari image di daw dans une résolution de 60 photogrammes par seconde de frame rate bobu bët mënu ko gis bët mënu ko gis décompilation nga ko mëna gis gis ko ay ngi dégg kon sa bët du ko jàpp sa xel mi nga xam ne mooy la conscience du ko xam l'inconscient xel mi nga xam ne moo nekk ci gannaaw mo koy japp mom lu mu gaaw gaaw dina ko jàpp te boo ko jàppee nag dana ko am na nu mu koy distiller di ko retransmettre ci sa esprit conscient loolu moo tax nga gis nit di bañ dara ba ci yàgg mu bëgg ko tax tax mu xam tax mu bëgg ko ah loolu mën na expliquer sax départ bon gi nit ñi bon gën a bon léegi goree yi ah, xale yi dëggatul seen i waajur ah, nit amatul honnêteté loolu yëpp loolu mën na ko expliquer donc eh, exclure ma ni lu gën a bon li ñuy gis nii ci film film boobu ak yemale moom ña nga mais man liñu ñu gis rek mom intéressé parce que amugo jotu mën def ay gëstu ci ci lool mais liñu ñu gis mooy image bi ñi jallalé mom loolu dañ ci jublu te dañu bëgg mu dakk te nak émission média Youssou Ndour yi moom dafa melné dafa melné les forces obscures yi nga xam dañu bëgg yaq l'islam yaq diiné ah té tàmbalee ko ci yoonu mourid dafa melné mom euh, télévision yoy wala média yoy lañu ñu tànn ah fa lañ élire domicile wala mo leen da moo leen gënal wala fa lañ leen di gënal yombalalé entreprise bobu nga xam mom moom lañ jël

am na benn image boo xam ne dama ko publier woon ci Facebook ba ñu bari di ko ñaawloog di ci saaga man Sëriñ Tuubaa moo tax di liggéey man ku ma saagaat ku ma xas gërëm ak ku ma xas laa yemale man Sëriñ Tuubaa moo tax di def te li may def dama koy def sama sama conscience bopp moo tax ma di ko def sama bopp tax ma di ko def dégg nga parce que je je fais je j'ai dit et je je soutiens que franc-maçonnerie infiltré na yoonu murid à des niveaux élevés et je le démontrerai voilà le moment venu et ce sera

Xuddaamul Xadim li ko tax lépp défendre yoonu murid rek ñëpp ko tax jóg du du bàyyi Fall ba du du du sëtub Cheikh Fall ba du sëtub Sëñ Gaawaan du sëtub Mame Thierno du sëtub yoonu murid da ko tax jóg l'intégrité yoonu murid te yoonu murid entité la lu global la loo xam ne mu ne su cee seppi lii yóbbu ci leneen lu dul la ca bokkut war mu ne su ko cee seppi dégg nga kon su ko dindiwul danañ ko porter plainte danañ def campagne massive pour murid yi boycotter ko parce que mu yi dañoo war a am fayda nag mu di lu ñuy fayee TFM ay millions pour mu retransmettre ko xaalis boobu bu ñu ko jàppoon jox ko Lamp Fall wala jox ko Touba TV ah bu ñu ko defoon ñu mën lañ man ah ndax ñoom seen moyen bopp la ñuy def te nag ñoo dugal leneen li dul production boo xam ne bu jëm Serigne Touba ah dañoo war am fayda bu ñuy tàggee lu ñu mën di def ak lu émission lu mu mën doon communiqué nañ ko def ci média murid ah bañ nañ ko ba comme li ma doon wax léegi waa Hizbut Tarqiyyah bi ñuy euh, bi ñuy ñëw dañu seppi sax ñoom surtout Touba yëpp yi nga xam ne dañuy dépenser xaalis seen xaalis bopp man je dépense plus de de de un million cinq cent mille wala un million sept cent mille ci Cheikh Ibrahima Fall point com boo xam ni boo xam ni jëlewu ko ci Cheikh Ibrahima Fall point com ngir liggéeyal Serigne Touba billahi al voilà ak yeneen ak yeneen au lieu ñu jàppale ñooñu dañu préfère nan la ñu complexé di jëm ay jël ay jàmbur di leen jàppale ah loolu lañ ko teg fële donc su fekkee ne émission bi ak lu demee ne moom ñu ci xas murid yi dañu man danaa def campagne bu massive pour murid yi boycotté ko ba pare danaa organiser un sitting boo xam ne maa ngi danaa ci invité mboolem ku Cheikh Ibra Fall ñor ndax Cheikh moom ñu ko bëgg dafa bari xam naa ne xaw ma lu ñu defal Serigne Touba waaye la ko Serigne Touba defal rëy na ndax damay dégg sax dinaa ci ñëw ñoo xam ne dañ naan Serigne Touba kenn deful ko dara Serigne na Serigne Touba bi muy dem nekk ci géej gi di ñaan amul kenn ku nekkoon ci gannaawam di ko am amin lu ko gën a dëggu amul parce que Serigne Touba nekk jamono jamonoon tewu boona ku ko mën a ku ko am na ñu ko nekkaloon ci jéeri ji di jëf yoo xam ne moo leen ko santoon kon ñooñu mu santoon ne defal leen ma nangam ñu nekk fi di ko defal kon ñooñu defal nañ ko daal la ca am nag mooy lam leen fay dale dafa dafa dafa dafa mu nekk en sans commune mesure ak euh, li ñu ko defal loolu nag li mu fayal Cheikh Ibrahima Fall ci la bokk parce que Cheikh Ibrahima Fall ñëpp ko bëgg Sëriñ Tuubaa du sant ko ko defalu dara bi mu jógee ci géej gi mag ñi mu fi bàyyoon ñëpp sant na leen kon kon bu ñu kenn defalu ko daal te Sëriñ Tuubaa day ku bëgg ko sant ñi àndaloon la ku fàttali ko ñi mu la ndax mi ngi wax ci muqaddimatul amdah bi mi tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tagg di ba mujj mu mel ne da koy bëgg a la xajji bopam dal di wax ni ayaa khadimul mutari la tansa sahbahu faman yansahum fal madhu madhu muqattaw yow aji ligeel yonent bi bopam lay wax boba bul fàtte sahaba yi nga xamni ñoy andol ak yonent bi ndax kuy tag yonent bi fàtte len kat tag wu mat kon bu deme ba ci bis bu ñu wara def sitin fañ koy defee dañ koy defee c'est à déterminer après si c'est nécessaire maa ngi danaa ci invité murid yëpp ak soppe Cheikh Ibra Fall yëpp ñu ñëw ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu